Sadio Mané sacré nañ ko fële ne ci euh, même su fekkee ne pa ballon d'or waaye nekk na deuxième c'est une première pour benn joueur sénégalais ñu def ci benn diane cinq minutes rek bàyyi Pamata moi je suis pas féru de football waaye quand même euh, Sadio Mané moom fierté la ñëpp waaw mais fierté la tey jii dañ koy dañ koy félicité bu baax a baax te aussi euh, exemplarité bi nga xamante ne da ko wane yaakaar naa loolu la war a gën a bàyyi xel boo mhm. xoolee déjà euh, tenue bi mu sol euh, Sadio Mané dafa yóbbu suñu culture au delà de sax li nga xamante ni mi ngi koy def ci terrain bi mais tey tax na ba àdduna bi ñëpp xam Bambali bi mu jógee mhm. nan nañ ko xamee par réalisation yi muy def donc jot na tey état du Sénégal gën ko delloo delloo njukkal mhm. mais aussi ñu bàyyi suñu doom yi ñu leen di valoriser de l'extérieur mel ñun fii suñu réew bàyyi xel ci li ñuy def lu lu lu lu bëri je pense que ni tey euh, état du Sénégal wax na mën a xool ci ambition yi mu am ak mission yi nga xamante ne moom jox na ko boppam. Mhm. Euh, moom Sadio Mané nan la ko état bi di di di gën a jàppalee parce que aussi euh, li muy def da koy def pour askanam mënoon na def comme yenn star yi ah. di mhm. ay oto yu rafet di def yenn affaires yi euh, mais def ko li muy am da koy delloo si réewam. te di mhm. porter xamante ne mooy suñu culture suñu drapeau yaakaar naa ne fierté la ndam la mais aussi mu jël yaakaar naa ne àdduna ñëpp gis nañ ko ko mérité parce que bu ñuy naan loo xamante ni ci mbirum social la Sadio Mané ba muy commencé di am tuuti la commencé di partager loolu tey dafa nekk loo xamante ni lu ñu war a mën a bàyyi xel la te malheureusement nag dañ nekk benn euh, société boo xamante ni dañuy tendre vers l'individualisme mhm. ku nekk lu mu am da koy jéem wan ñeneen ñi di leen wan ni que man am naa li am naa lii mais empathie bi dafa commencé disparaître moom nag ñëw na di ñu wan li nga xamante mooy valeur humaine mhm. valeur yi nga xamante ni tey jii moo doon tax Sénégal ñu ko doon wax mooy sutura mooy kersa mooy aussi li nga c'est un exemple pas seulement pour Sénégal c'est pour toute l'Afrique pour wane ni doomu Afrique ci lépp lu mu nekk am ci xarañte mën na ci àgg sori loolu vraiment ñu koy félicité bu baax a baax a baax. Mhm. fierté la fierté la pour euh, tous les Sénégalais ñu encore hisser waat le drapeau sénégalais vraiment très au ñuy aussi partager la même vision que Pape Matar tey dafa am exemple boo xam ni ne Sadio Mané daf ko joxe dafa joxe ni euh, boo amee tuuti sax mën nga ko partager fa nga jógee ah mën nga faa defar loo xam ni xaaroo état ah, xaaroo ah, leneen ak leneen mu ñëw def ko donc loolu mooy valeur yi nga xam ne tey moom la Sadio Mané di incarné mais man ah, dama xaw a am regret parce que man dama gëm ni Sadio Mané mérité d'être ballon d'or donc loolu aussi c'est des question yoo xam ne war nañ ci posé wu ñun les Africains fan lañ war a yóbbu aussi suñu baat ba nga xam ne si lobby yooyu nga xam ne parfois moo ñu empêché ñu atteindre yenn organisation yi yenn niveau yi Euh, mhm. ñeneen ñi nga xam ne dañuy def du lobbying euh, pur di mën a arriver il faut aussi ñu mën a am tey un leadership affirmé dans toutes les organisations football bi benn mais leneen ak leneen ba nga xam ne euh, suñu dëkk yi euh, mais surtout le Sénégal danañ gën a mën a affirmé wu ñu ngi vraiment à travers Sadio Mané di féliciter tout le football sénégalais mm-hmm. parce que defe naa ils nous ont donné temps yi mujjee yépp ay euh, plaisir ak mm-hmm. bonheur boo xam ne nation daf ko soxla parce que nation dafa soxla di gagner nation dafa soxla di am ay références nation dafa soxla ay doomu réewam di di di di am ay raaya ndax loolu dafay yëkkati gëddu dëkk te mhm. vraiment Sadio Mané rendre nañu cet hommage ah, waaw xanaa di euh, euh, lancé wu sur la même enseigne rek mhm. di féliciter Sadio Mané euh, di wax ne ak moom quelque part mun naa wax ne sax Sénégal dafa am chance mhm. puisque boo nekkee un footballeur nekk Europe ba lumière yi tiim la comme nu ñu tiimee Sadio Mané te terewul nga garder sa modestie terewul nga garder say origine xam nga loolu yëpp mënoon na ko ci bañ a fekk mënoon na nekk un euh, nu mu tuddati grand footballeur boo xamante ni il est connu partout en Europe te du lijjanti Sénégal wala muy def loo xamante ne nii sax ku ko dégg di xarab Sénégal. Mhm. mais tey on voit que c' est contraire. donc on peut quelque part que c' est un ambassadeur pour le Sénégal. d' accord alors ñu dugg ci waxtaan bi Issa ma bàyyi waaw euh, ak li nga xam ne moo di nemmeeku tuur bi ndax tey ña nga ca fa nga xam ne euh, moo di ca euh, teen tubaab lañ njëkkee sax daal di wutali ca Popenguine jaare ji ca buur loolu yëpp nag di lu nga xam ne dañ koy amal dans le cadre du nemmeeku tuur bi nga xam ne Ousmane Sonko moo koy amal mu di njiital Pastef les Patriotes mais nag nemmeeku tuur la boo xam ne quand même c'est sous surveillance ndax gis nañ que ni sax ni ki bañ tollee rek ca Popenguine lu mhm. mat plus d'une dizaine lañ wax sax ci ay woto yoo xam ne oto yi takk der lañu ñi ngi euh, taxaw ci seen wet en tout cas ngir euh, mën a saytu buñ comme ni ñu koy waxee souvent kaaraange loolu yëpp di ca commune bu Sindia ba nga xam ne fa lañ dem ñu gis ay jàppante yi ci amoon en tant que membre PASTEF euh, lan yan jàngat nga ci am ci li nga xam ne moo xewoon ni ki bërki démb ca foofu lay diggante Mbour ak Joal. defe naa li ma ciy jàngat moom la Sénégal yëpp jàngat am njàqare torop ak naqar goo xam ne habité nañu en tant que membre de PASTEF. parce que li ñu gis euh, bërki démb euh, bi notre leader et le président du parti Ousmane Sonko di dem def li nga xam ne euh, dafa jàpp dañu jàpp ni dafa bokk ci suñu yoonu politique muy nemmeeku tour euh, doon euh, vraiment loo xam ne dafa dafa bokk ci suñu agenda politique ñu a ñu indil ñu takk der yi vraiment nombre boo xam ne foo ko làmb rek dépassé na ko mu doon loo xam ne dama jàpp ni du dëgg di yoon si dëkk boo xam ne day woote démocratie ndax ñun nous sommes un partie d'opposition et nous avons le droit je crois si sillonner le Sénégal donc euh, le président Ousmane Sonko le parti Pastef si programme am mhm. euh, dafa nekk loo xam ne bañ ko yëkkatee ba léegi euh, defe naa lu nekk ñu ngi koy dégg d'abord bi ñu commencé ci levée de fonds parce que il faut ñu retourner en arrière mhm. pour xam ce qui s'est passé fan la jógee ak lan la mhm. wund ndax bi ñu levé defee lever de fonds jour J même jour boobu même la am benn communiqué bu génnoon du ministère de l'intérieur ñu xam ne communiqué bi si ñun lañ ko adressé ñu continuer quelque mois plus tard ñu naa vécu les événements du mois de mars ak li ciy wundu yëpp tey euh, ñu egg si fi nga xam ne dañuy dérouler suñu programme bi nga xam ne doxantu la te le leader notre leader Ousmane ko am sañ-sañ comme tout sénégalais mais aussi comme président de parti euh, mën ko def dugg Sénégal waxtaan ak sénégalais yi ñu jóge ci ay élections am tamit loo xam ne dañ koy yootu ci dëkk bi mu jëm ci élection présidentielle yi nga xam ne mu ngi ñëw il faut le dire ñun dañu décider notre leader wax na ko euh, nekk candidat pour les élections présidentielles donc en tant que futur candidat donc pour ces élections dañu am sañ-sañ bu ñu yoon may ñu mën a dugg ci dëkk bi ak nuñ ko sentiré donc tey euh, dañu nekk ci dynamique boo xam ne dañu bëgg a stopper benn élan boo xam ne euh, le parti Pastef jël na ko euh, parce que bu leen fàtte ni dafa am lu inédit lu fi am récemment bi élection législative yi di am defe naa le président Ousmane Sonko a vraiment montré sénégalais yi wan ko cofeel fu mu jaar rek Ah, mu am vraiment euh, benn déferlante boo xam ne maanaam marée humaine boo xam ne dañ ko topp wan ko cofeel wan ko mbëggeel te loolu tey doo du loo xam ne dafa xëy rek am defe naa la la la le président Ousmane Sonko est une réalité politique et un phénomène politique au Sénégal nit ñi ñoo ko jël bëgg ko def ko ci seen xol tey président Ousmane Sonko fu mu génn nit ñi dinañ ko topp maintenant dañu bëgg ñu tegaat vraiment les choses dans leur contexte defe naa le président Ousmane Sonko leeral na ko ci sortie bi mu am bërki démb mooy euh, l'objectif nekkul jóg di woote mais dafa am sañ-sañu dugg ci déplacement wam cible ay kër cibler ay famille religieuse ciblé ay organisation pour dem seeti leen euh, du du mobilisation boo xam ne euh, dañuy woon nit ñi mais li am ba am mooy le président Ousmane Sonko tey fu mu génn nit ñi dinañ ko topp donc man j'estime que tey nañ ñu bàyyi ñu def suñu nemmeeku tour parce que quoi que vaille maanaam lu mën a am danañ ko def est-ce nekkul woon benn cas isolé rek parce que gis nañu tey moom depuis lors après y a pas eu d'incident tout se passe bien ça montre juste que dañu nekk ci dëkk boo xam ne euh, malheureusement euh, pour nga mën a def li nga bëgg tu es obligé euh, d'en arriver à dire exactement ko même suñ ma ko teree dinaa ko def parce que tamit c'est pas des choses yu ñu war a mën a tere parce que man gisuma fenn foo xam ne tere nañ Euh, un leader wala ki am na yeneen leader yu fi nekk il n'y a pas que le président Ousmane Sonko ñuy génn di dem di def seen euh, visite de proximité di dem di def seen ay rencontre avec leurs militants te kenn terewu leen ko donc dafa mel ni yëf yi dañ ko ciblé ci benn nit muy notre leader et le président Ousmane Sonko ça montre juste que euh, Sénégal la peur a changé de camp tey dañu toll foo xam ne il faut le dire c'est le c'est l'homme qui fait peur à ce régime le parti Pastef ak li muy drainer ak li muy incarner tey euh, comme vraiment euh, alternative moom mooy def peur may wax rek ni euh, lu mën a am suñu nemmeeku tuur en toute responsabilité dinañ ko def et que le président Ousmane Sonko dina sillonner tout le Sénégal fépp fu nga xam ne militant mu ngi fa fépp fu nga xam ne sénégalais mu ngi fa am nañ sañ-sañu dem jàkkaarloog moom wax ko lan mooy suñu mbébét ci réew mi te le président Ousmane Sonko ira à la rencontre de tous les Sénégalais de quel bord qu'il soit fu ñu mën a nekk ak commune bu ñu mën a nekk ak département bu ñu mën a nekk objectif bi c'est clair c'est de faire tous les départements du Sénégal et c'est un programme qui a été lancé euh, week bi te dinañ ko continuer incha allah te gisuma lan moo ñu mën a tere ñu def ko oui alors euh, ci oui Biram Mame Biram euh, maa ko doon wax léegi Khadija di ko naan est-ce benn cas isolé rek parce que depuis boobu ñu ngi gis ne vraiment euh, deux jours yi tout se passe bien amul incident est ni le cas suite tournée Ousmane Sonko bi oh, oh, waaw on, on, l'espère en bon républicain un bon démocrate loolu la ñuy xalaat parce que dans un pays normal quand même ñu euh, ne c'est une démocratie je pense que lu mel ni warul sax di am quoi euh, puisque quelque part jour bi nga xamante ni Ousmane Sonko mu ngi def euh, euh, nemmeeku tuuram boobu ba mu am coow au même moment de leaders de l'APR ñu ngi doon tenir de activité ici à Dakar donc ku mel ni Racine la organiser na fi manifestation bu mag sa commune am ba di wax naan sax lu le président Macky Sall su nangul troisième mandat ñun dinañ ko forcer mu def troisième mandat loolu ba mu koy wax ci ab rassemblement la ko waxee. donc gisuñu benn alkaati gisuñu benn gendarme boo xamante ni ñëw na foofu di am lu mu ciy wax en même temps également gis nañu beneen responsable de l'APR ku mel ni Abdoulaye Diouf Sarr di lancer son mouvement mm. euh, moom tamit comme Racine Talla wax foofu ay wax yoo xamante ne nii quelque part ni ñu koy comprendre mooy Benno Bokk Yaakaar ce n'est même ce n'est même plus l'union sacrée. ñeneen ñi doon saboter campagne am lañ jël neexal leen. <laughs> Oh, waaw mais daal tous les cas bëgga wax foofu rek mooy pendant bikul ci néegam la ko doon waxee nekkul ci saalam la ko doon waxee ci biti la ko doon waxee ak ay nit ñu bëree bëri le deux poids deux mesures bi nga xamante ni am constaté nañ ko ci euh, régime bi nu muy doxee depuis un certain temps parce que quand même mënuloo bàyyi un directeur général muy def rassemblement am mënuloo bàyyi un député muy def rassemblement am keneen koo xamante ni mu ngi beneen parti nga ne ko doo dem defi sa sa activité le président Macky Sall su bëgguloon loolu mais il n'avait pas à radier Ousmane Sonko tey jii nii su bañoon Ousmane Sonko def nemmeeku tuuram yaakaar naa ne su doon Ousmane Sonko mu ngi tuur nekkoon toujours membre euh, nu mu mu ngi woon toujours nekk euh, dans la fonction publique yaakaar naa du tëj biroom di naan day dem di defi ji nemmeeku tuur donc loolu c'est sa responsabilité d'abord leneen li ma ci bëgg a teg mooy que euh, soo seetloo ba seetlu parce que quand yi bu tegoo Euh, coow bëri dañ naan dañuy convoqué loi yi xool ku nekk taxawaay bi nga taxawee ak est-ce que am nga ci droit ou pas li nga xamante ne nii moom moo constat maanaam mooy que con constitution Sénégal nga xamante ne nii mooy charte bi gën a euh, mag ci réew mi moo permettre à l'opposition mu def ay manifestation nu mu ko bëggee on a constaté quelque part au mois de juin opposition bi bëgg fi organiser ay manifestation au niveau de la place de la nation Euh, gouvernement bi bañ di évoquer ay raisons de trouble à l'ordre public mhm. léegi bu nekkee ne yow da nga leen a tere seen manifestation euh, à Dakar nga ne pour raison à l'ordre euh, pour des raisons d'ordre public mhm. léegi ñoom ñu ne génn nañu Dakar ñu ngi dem dans les régions yi nga xamante ne nii pratiquement <laughs> damay toog may waxtaan ak sama benn xarit ma ne ko à part la région de Dakar yeneen département yi au Sénégal la plupart wala pour ne pas dire l'essentiel mais pour nga gis fa embouteillage c'est tout un problème mm -hmm. pratiquement toutes les euh, autres régions bu nekkul Dakar Thiès peut-être euh, tuuti mais pratiquement y a pas y a pratiquement pas de vie y pratiquement pas d'ambiance des régions délaissées waaw ouais, mais nag Ousmane ñëwee ci zone yooyu ngay wax ni kenn du fa ñëw sa am marée humaine comme waaw de de ko aussi pour mettre pour pour sa propre sécurité looloo tax. Oh, oh, oh, euh, euh, euh, am jot gu rafet rek. no xam nga bu doon Ousmane Sonko bu muy dem. ci benn localité par exemple avant boobu wax na waa localité ba génn leen au moins sax nga mën a wax ne kii il appelle à rassemblement mais nemmeeku tour mooy da ngay nemmeeku ci man li ma jàpp parce que c'est un mot wolof quand même jarul euh, nu mu tudd interprétation bu rëy mooy nga dem ci benn gox dem seeti ñi nga xamante ne nii am nga ak ñoom jàmm mu nekk ay leader de parti mu nekk ay notable yu nekk ci dëkk boobu nga dem saafonte ak ñoom loolu pour man mooy nemmeeku nekkul ne dangay dem pour mobiliser ay nit léeg la ak léeg maintenant si on veut lui reprocher mu jaar ci un les populations génn topp ko je pense que ça chose te bu boobaa comme li ñu continuer di wax rek ce serait une injustice boo xamante ni dañ koo teg un acteur politique bu am droit quand circuler même bu nekkul acteur politique sax <laughs> man mii am naa droit de circuler un partout au Sénégal pourquoi ñu ma ko war ñu war ma koo tere. d'accord alors Pamata est-ce que du dañoo teel a yuuxu rek euh, dégg gis ay forces de l'ordre rek daan dañ ko bëgg tere tourner parce que bu ñu xoolee la suite des choses. non je pense pas parce que boo xoolee en réalité euh, li li li Macky Sall ay service am mooy euh, jox ko publicité boo xamante ni euh, peut-être doo ko jox sa adversaire parce que tey ñi ngi waxtaanee nemmeeku tour bi démb ñi ngi si doon waxtaan boo moytul dinañ toog une semaine di waxtaan ci loo xamante ni dafa waroon nekk loo xamante ni lu ñuy banaliser la parce que mm-hmm. parti politique bii def ay activité politique am du intéressé yenn sénégalais yi xam nga tey jii nekkoon nemmeeku tour en tant que nemmeeku tour bu amul benn incident doon ko teg seen rédaction bi parce que amul benn valeur informative maintenant bu amee ay incident parce que dafa am benn interdiction wala ay lacrymogène si la valeur informative du jud mhm. donc je pense que ni euh, président Macky moom mooy créer adversaire mais aussi moo leen di fal defoon na ko ville de Dakar Barthélémy Diaz moom lañ doon empêché moom lañ doon dóor lacrymogène ak yooyu noonu donc la même chose aussi moom mooy nekk di répété wu à chaque fois président Macky Sall mel ni moom jàngul ci li nga xamante mooy erreur yi mu def boo xoolee euh, trajectoire Sonko bi d' moom am na lu mu si jot a liggéey discours beeg yooyu yëpp mais li ci gën li ci gën a bëri Macky Sall ko defal bu ñuy wax mars 2021 bi tax na ñu bëri tey ji ànd ak Ousmane Sonko tax na aussi ñu bëri tey ji positionné wu carrément que ni waa ji wax na mën a doon une alternative au Sénégal donc man li ma li ma mënut a comprendre mooy Macky Sall en fait lan lay lan lay lan lan lan lay xalaatee en fait ba yenn mbir yoo xamante ni dafa tellement évident nit ki nee na day dem defi ji activité politique te ñeneen di ko fi def maa ngi ko fi wax la dernière fois gëm sa bopp Macky nekk na di def tournée mu topp ci ginnaaw. tibb tànk fu mu tournée mu jaar fa te pourtant wuñu ko. lu mu tudd waa grand parti chaque deux semaines ñun ñi ngi tournée nationale bien que kenn du leen gis fenn waa PDS ñi ngi wër di jaay seen ay cartes donc cest am na yoo xamante ni activité politique la loo xamante ni ñëpp a koy def lan moo tax na bu Ousmane Sonko jógee rek ñoom ñu commencé jóg di commencé di wax ak di naan dañ koy tere te en réalité mënuñu ko tere. est-ce que waruñoo joxoñ baaraam tuuba ñi nga xam ne mooy administration territoriale. non xam nga administration territoriale. ay ay sikkim lay rek. di di def loo xam ne xëy na sax sant ñu leen ko. non ah non non Ousmane Sonko naan président Macky Sall est-ce que initiative pour bëgg lu neex diw. xam nga xam nga lu la lu la lu la ma mbiram wàcc wax la ay sikkim nañu gestoo leen di yóbbaale sa dire mm-hmm. ñoo xamante ni euh, dañuy jot ay ordre te boo nuyee préfet dafay jot ordre ci ministre de l'intérieur yow gëmoo ni ministre de l'intérieur dina agir de son propre chef. di toog di def loo xamante ni du ci waxtaan ak Macky Sall donc Macky ci boppam mooy joxe ay ordre di xool parce que en réalité intimidation la dañuy xool bu nooyee ñu arrêté ko. bu nooyul ñu continuer bàyyi ko léegi li ñuy def nan mooy intimidation léegi dootuñu la empêcher yow nga def sa liggéey say activité politique da koy continuer def mais dañuy jël ay force de l'ordre teg ba ñenn ñi nga xamante ne bëggoon nañu génn ñëw fekk ji Ousmane Sonko dinañ ragal parce que dañuy naan fii ñu indi ay gendarme de ak ni ñu équipé woo boo moytuwul bu ñu fa demee coow na fa am c'est en réalité ñoom dañuy nekk di jouer ci ay stratégie te malheureusement dafa nekk loo xamante wax dëgg yàlla war nañu ko mën a dépasser am na essence am am na <laughs> suñu beneen point ci suñu waxtaan gis nañu récemment euh, créé metre ngeen en place euh, ginnaaw ba ngeen restructuré li nga xam ne mooy seen parti Pastef euh, di la félicité de passage gis nañ ni le réseau des élus locaux du Sénégal dafa nekk benn kuréel bu bees bu ëmb ñi nga xamante ne mooy les maire de l'opposition lan moo tax gisoo leen seen bopp ci AMS ba ngeen créé li nga xam ne mooy la réel. alors damay rectifier d'abord parce que le réel ne pas le réseau de l'opposition c'est très important ñu nuancer c'est un réseau